di leen wax ne suñu mouvement bi ngeen nekk ñu ci bari ci yéen am ci sympathie am ci yéene mouvement boobu li ko tax a taxaw mooy liggéeyal commune bi jàppale askan wi ci lépp loo xam ne rek euh, lu ñu soxla ci développement la et ñu loon xaar nag élection municipale yi euh, ñëw élection locale yi yàlla def na fixé nañ ko le 23 janvier yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm ñëpp fekke ko te tal euh, ñu fàttali donc BEX du du association kese benn mouvement la boo xam ne association yu bëri ñoo ci ànd ak i mouvement ku ci nekk ñëw di ci béy sa waar BEX euh, ràññu ko ràññee ci commune bi ci taxawu askan bi lépp loo xam ne rek am nañ ko ñoom lañ ko yéene dañuy jëm séddoo ko am ñoom muy tabaski muy tamxare muy muy korité muy événement ba mën ci doon daal lu ñu am rek ñu ngi xalaat ne war nañ ko séddoo ak askan wi jàppale leen ci fourniture jàppale leen ci euh, denrée lu mu mën ci rek loolu mex loolu la taxawee du du alalu benn nit ay ay euh, nit ñooy dajaloo ku ci nekk ñëw indi sa sa sa tuut ñu ànd di jàppale askan bi loolu lañ doxal ba nga xam ne nit ñi daal di ne ah ñi de vraiment jaadu na bu ñuy waxati waxu maire yi ñu boole leen ci loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu def ci wàllu euh, askan bi fii ci Mexe Euh, jaru sax peut-être ma ciy jaaraat parce que bari na yoo xam ne ñoo yéen ñoo ko ñoo ko gisandoo muy wàllu médecine euh, santé muy wàllu éducation muy wàllu sport ñun ñëpp xam nañ ne médecin xaritu ñëpp lañ ci wàllu woowu. Euh, kii ci wàllu liggéey am na loo xam ne liggéey nañ ko fii ci wàllu environnement mu nekk loo xam ne. ci ay la yéwén dafa dafa dafa sooxee ci ci suñ commune bi boo xoolee suñu commune bi bari na euh, euh, inondation bari na béréb yoo xam ne war nañ ci dem dara te yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne ñun ay mébét yu ñu am fas yéene bu ñu amoon possibilité dugg ci appareil municipal bi mu nekk yoo xam ne ñun mooy nekk suñu yitte donc MEX noonu la taxawe daal ba yéen mu ñëw. ne tànn euh, dañoo war a tànn ku ñu àndal ci wàllu élection yi parce que élection fi mu nekk Sénégal du ñëpp xam nañ ko mooy dem élection yow sa coggal guy daanaka doo doo ci doo doo ci war a génn il faut nga tànn ñoo àndal tànn bi nag day laaj waxtaan seetlu ba pare nga ba a juum ci tànn bi loolu moo tax ñun ni ñu wax ne bi fi nekkee ak léegi kenn moo ñu mës a tàllal loxo ñu waxante li muy def yëpp li ñu li mu li mu li mu wax dina ko def ñun li ñu wax danañ ko def muy Lat Diop deseeru na ci li ñu ànd yëpp lépp loo xam ne dañu war a taxawoo askan wi bu ñu waxante ñun buñ jaaree nii def loolu dinañ ko gis ne moom muy def lu ñu mel wala lu ko kon boog kooku ànd ak moom dañu jàpp ne dafa mooy chance su ni ko kii waxee sànq Golf Sud parce que boo jëlee ñoo xam ne dañu toog xam terrain bi di ci nekk ak ñoo xam ne dañu am motivation fas yéene liggéeyal askan wi soxlawuñu alalu askan wi parce que loolu mooy li am man ñi ma xam ñëpp xam nañ ne dërëmu mairie bi bëgguma ko mun naa waxal loolu euh, la dé dërëmu mairie bi soxlawuñu ko kon boog bu nga ñëwee seet ñoo xam ne bu ñu amee benn bu bu commune bi amee cent mu delloo ko cent wala wut ci cinquante doole ci doo ñëw di sa tàggal jox ñoo xam ne fu terrain langu ñu jël fu fu xaalis amee ñu ñu lugal donc loolu dafa nekk lu war a deñ loolu nag lan moo ko mën a dindi mooy ngeen jàppale ñu ci li leen wax nii équipe bii ñu teg nii insha allah bu leen ko jàppalee du leen ko rëccu keneen ku fi ñëw di wax keneen ku fi ñëw di wax day wax lu ko neex wallahi day wax lu ko neex mais euh, jàpp naa ñi incontournable ci golf incha allah ñuul la ak la tur. ñu ñaan borom bi mu may ñu li ñuy wut mu may ñu li ñuy wut pour askan wi askanu golf xam ne perte ñu ngi doon perte temps bu yàgg wallahi parce que golf amul fu ko gën ci emplacement ci ci région de Dakar bi dafa nekk site boo xam ne kenn exploité wu ko. kenn valorisé wu te loolu yëpp ñun mën nañ ko def mën nañ ci taxaw léegi nag ñu ngi ñaan euh, ngeen vraiment dem ci wàllu renouvellement yi liste list liste yi da ngeen dem xale yi ngeen dem euh, ñu defaral leen carte ngeen ñëw li ngeen doon wax ci ci ci ñun bu ñu leen fa jaaree ngeen koo jàmbal yëpp lan moo ko mën a faj ngeen dem jël seen carte ñëw jàppale mais bu ngeen toogee nag ba ñu tëj ministère électoral yi da amul leen carte ngeen xam ne yéen yéen a génne seen bopp ci combat bi waaw ngeen xam ne combat bi bu ñu tiiréwul seen i bal yéen la kon boog euh, mu terminer rek vraiment di remercier ni ma koy waxee toujours jigéen ñi wallahi man lu ma gëm la ñoom laa gis du ñu bàyyi du ñu bàyyi foo woote ñoo fa ne ñoo fa ëpp ñoo ci ëpp motivation loolu nag maa ngi wax jeune ngeen ngeen bàyyi xel seen seen yaay maa ngi tudd Amadou Fall président mouvement pour l'émergence de Golf Sud voilà je m'appelle Amadou Fall je suis le président du mouvement pour l'émergence de Golf Sud donc aujourd'hui ce point de presse est, clair et précis nous avons pris l'engagement d'investir monsieur Lat Diop de l'accompagner et de briguer cette mairie-là pour régler les problèmes des, des de Golfe Sud. Nous sommes là depuis plus de 20 ans, rien de bien ne se fait et aujourd'hui on est capable de, régler tous ces problèmes. Inch'Allah. kon yàlla ci yàlla jàppale maa ngi remercier ñëpp di sant ñëpp wasalaam